salaamaaleykum mbokki déglukat yi am nañu mbégte mu rëy ci li nu xam ni yéen a ngi nuy déglu ak takkute bég nañu it ci li nu mën a dellu si tey ngir dégte leen seen émission yoonu njub bu ngeen koy fàttaliku jàngoon nanu fi ni yàlla jëfandikoo woon waareb yonentam yi ngir yëgle juddug musalkat bi ak teewam gisoon nanu it ne lépp li ñu yëgle woon amee na ni tembe moo tax gannaaw ndekkiteem yéesu newoon na ay taalibeem yu mu feeñu woon yéen daal yéena ñàkk xel te seen xol yéex a gëm li yonent yi yégle woon xanaa du almasi bi dafa waroon a daj boobu coono te dugg ci ndamam noonu mu tàmbale ci yonent yàlla muusa ba ci yonent yépp tekki leen li mbind mi wax lépp ci ay mbiram mu ne leen faawu almasi bi sonn mu dee te dekki ca ñetteelu fan ba ni ñu ko binde te it ñu yëgal xeet yépp ci turam dale ko ci yerusalem ne war nañoo tuub seeni bàkkaar yàlla bàlleen kon loolu moo nuy dugal ci sunu njàngum tey mi jëm ci xewum paak ndaxte dañu gis ne solop paak ump nañu bare dañuy setu ne yoonu way gëm kirist kese fi sosu te samp ci ndekkitel ki ko sos moom rek amul weneen moo tax ndekkiteli nekk njàngale mu am solo ci ngëmu gaayi kirist léegi nag ngir jëm kanam tànn nanu ñaari yonent di daawuda ak ose bokk ci yonent yi yëgle woon li musalkat bi nara defal mbindeef yi bu nu jëlee yonent yàlla daawuda dinanu gis ne bindoon na waxi musalkat bi ci sabuur ne yow yàlla doo wàcc sama ruu ca barsàq doo bàyyi sa waaju sell yàqu dinga ma teg ci yoonu dund yuuxuy ndam ak mucc jib nañu ci xaymay ñu jub ñi ndeyjooru aj sax ji feeñal na kàttanam ndeyjooru aji sax ji jóg na ndeyjooru aji sax ji feeñal na kàttanam duma dee dinaa dund dinaa nettali jëfi aji sax ji aji sax ji duma na ma waaye jébbaluma dee ubbil leen ma bunti njub gi dinaa dugg dinaa tagg aji sax ji buntu aji sax jaa ngi nii ci moom la aji jub yi di jaar dama lay tagg ndaxte nangul nga ma ndaxte musal nga ma doj wa tabaxkat ya sànni nekk na doju koñ wa ci aji sax ji la loolu jóge kéemaan la ci sunuy bët bésub tey ji yàlla moo ko def na doon mbégte ak bànneex naka yonent yàlla ose moom bindoon na ne ñëw leen nu dellu ci aji sax ji ndaxte xotti na waaye dina wéral dóor na waaye dina faj sunuy góom fileek ñaari fan dina nu delloo dund gi ci ñetteelu fan bi dina nu yëkkatiwaat te dina nu dund ci kanamam nanu xam nanu wuta xam aji sax ji ñëwam dafa wóor ni fajar dina ñëw ngir nun mel ni taw bi mel ni tawu cooroon buy nàndal suuf si mbokki déglukat yi ay junni junni at gannaaw ba yonent yi yëgle ndekkitel almasi bi yéesu jaare ko ci kàddu yooyu ak yeneen yu ni mel pierre di kenn ci ndawu kirist yi dëggal na loolu bi mu naan mën naa leen wax lu wóor ci mbirum maam daawuda ne dee na te suul nañu ko bàmmeelam mu ngi ci nun ba tey waaye yonent la woon te xamoon na ne yàlla digoon na ko ci ngiñ ne dina teg ci nguuram kenn ci askanam kon gis na lu ñëwagul di wax ci mbirum ndekkitel kirist ne bàyyi wuñu néewu yeesu ci barsàq te yaramam yàquwul yeesu moomu nag yàlla dekkal na ko nun ñépp seede nanu ko dégg ngeen ni yonent yàlla yi yëgle woon ndeketeel kirist ci kaw lu nu jàng ci yeneen émission war ngeen xam ne paak mooy weekend bi nga xam ne ci la yéesu dee ca kaw bant ba te dekki ca néew ya ca la yéesu dekki woon moo tax sax am ñu tudde paak xewum ndekki te wante ndax xam nga fan la paak ci boppam soqi ko laaj bu am solo ngi noonu ci loolu li nu wara jëkk xam mooy gannaaw ba yawut ya nekkee ca misira ñeenti téeméeri ati njaam yàlla fàttaliku la mu digoon yonent yàlla ibrahima ba mu ko nee sa askan dina nekk ay doxandeem ci réew mi ñu moomul ñu di leen def ay jaam lakkal leen diirub ñeenti téeméeri at waaye waa réew moomu leen def ay jaam dina leen àtte bu loolu amee nag sa askan dina ca génn ak alal ju bare noonu yàlla tànn ci yawut yi kenn ku tudd musaa yàlla yónni ko ca firaw na ngir mu génne mbooloom ma réewu misra waaye firawna bañ leen a bàyyi noonu yàlla wàcce fukki musiba ci waa misra ngir ñu bàyyi bànni israel ñu dem waaye ca fukkeelu musiba ma di deewu taaw ya la leen firawna soog a bàyyi moona yàlla artu woon na firawna ne ko soo bàyyiwul sama mbooloo mi ñu dem dinaa rey képp kuy taaw ci réew mi dale ko ci sa taaw ba ci taawu surga yi gën a ndaw ak taaw yi bàyyi ma yépp wante firaw na dëgëral xolam bañ leen a bàyyi ñu dem waaye li wér mooy yàlla moom lu mu wax def ko bi loolu amee kon yàlla ne ñoom musa weer wi dina doon ci yéen weer wi jiitu ci weer yi di weer wi jëkk ci at mi wax leen ak mbooloom israel mépp ne leen ci fukkeelu fanu weer wi na boroom kër gu nekk jël ab gàtt kër gu nekk ak gàttam su fekkee kër ga dafa tuuti cib gàtt nañu ko seddoo ak dëkkandoo bi leen gëna a jege xayma ko ci ni nit ñi tollu nangeen tànn gàtt bi mu dëppoo ak li ku nekk mën a lekk tànn leen kuuy wala sikkep mu foq benn te amul sikk ngeen denc ko ba ci fukkeelu fan bi ak ñeent ci weer wi bu kerooge li dale ci ngoon ba jant di so na mbooloom Israel mépp ànd reyandoo seeni gàtt gannaaw loolu nañu jël ca deret ja taqal ko ci ñaari jën yi seq buntu kër gi ak ci njëwal buntu kër yi ñu lekke gàtt yi guddi googu man aji sax ji dina jaar ci biir réew misra te dina fàdd taawi réewu misra yépp dale ko ci nit ñi ba ci mala yi te it dina bugal yàllay misra yépp deret ji nekk ci kër yi ngeen di dëkk nag dina doon xàmmeekaay ngir yéen bu ma gisee deret ji dinaa leen teggi ba menn musiba du leen laal bu may fàdd réewu misra bés boobu pàttaliku lay doon ci yéen ngeen di ko màggal mbokki déglukat yi noonu la paak maanaam saraxu bésu teggi ba sosoo yàlla ne gaayi israel na bés boobu doon pàttaliku ci yéen ngeen di ko màggal ci sarax boobu la yàlla jaare goreel bànni israel ci seenug njaam ñoom mënuñu woon génne seen bopp ci njaam googu waaye yàlla amoon na pexe pexe mi moo doon xar mu sikkul mi leen yàlla santoon ñu rendi ko diw deret ja ci bunti kër ya noonu malaakam yàqkat mi rey taawi misira te teggi leen booba la leen firaw na génne ñu dem kon ci loolu mel na ne dañu deewoon te léegi dekki nañu wóor na leen ne mucc nañu ci na yàlla ne woon na leen bésu pàttaliku lay doon ci yéen moo waral ba léegi ñuy fàttaliku bés boobu ci xew mi ngeen gën a xam ci paak mbokk yi ñu déglu ci xewum pàttaliku moomu di paak ca la yeesu dekki woon kon bey misaal rekk ne yéesu moo di saraxu bésu teg bi yàlla tànn gannaaw ba yéesu deewee dekki na ngir biral ne képp ku ko gëm boo deewee it benn bis dinga dekki ni mu dekkee tey dund ba faw kon gannaaw ay junniy at li yonenti yàlla yi di daawuda ak ose yëgle woon ci ndekkitel musalkatu àddina si lépp amee woon na noona ñetti fan gannaaw ba ñu robe yeesu jigéen ñu daan ànd ak moom dem ca bàmmeel ba noonu ñu fekk suuf yëngu ndax li benn malaaka wàcce asamaan bërën doj wa uboon bàmmeel ba noonu kàddug yàlla nee na bi jigéen ñi agsee ñu fekk ñu bërën doj wa uboon bàmmeel ba ñu dugg ca bàmmeel ba waaye fekk ñu fa néewu borom bi yeesu noonu ba ñu nekkee ak seen njaaxle am ñaar ñu leen feeñu sol yaru yu weex yuy melax jigéen ña am tiitaanga ju mag daldi dëpp seen jë ci suuf waaye ñu ne leen lu tax ngeen di seet kiy dund ci biir néew yi nekkatu fi dekki na fàttaliku leen la mu leen waxoon ne faaw ñu jébbal doomu nit ki bàkkaarkat yi ñu rey ko ci bant mu dekki ca ñetteelu fan ba noonu la yéesu wone ne moo daan dee yeesu moo ëpp kàttan dee yéesu def na la mu waxoon yawut ya ba mu naan leen daaneen leen kër yàlla gi ma daldi ko yëkkati ci ñetti fan kër yàlla gi ko taxoon di wax du woon am taax mu loxo yi nit defar yaramam a ko taxoon di wax ci dëgg yéesu mooy ki mu teg boppam maanaam musalkatu àddina si su yéesu nootul woon dee nan lay mën a musale ñeneen ñi ci dooley dee ak bàkkaar ak safara xalaatal ci loolu moo tax ndekketel yéesu nekk bànneex bu rëy ci ñu ko gëm ndaxte ndam la dafay wone ne benn bés itam yéesu dina dekkal ñi ko gëm ñépp ndekkite yi mooy firndeel ne ñi gëm yéesu am nañu mucc gi yàlla nangu na saraxu yaramu yéesu gannaaw ba yéesu ne lépp mat na yàlla nee na amiin jaarale ko ci ndekkitel yeesu kon yow miy déglu xamal ne boo gëmee saraxu yéesu dina la dekkal bés ni mu dekkee moom ci boppam kàddug yàlla biral na ko naan ci mbirum ñi nelaw nag mbokk yi bëgguma ngeen réere mbir ba tiis ni aji gëmadi yi amul cenn yaakaar ndegam gëm nanu ne yéesu deena te dekki noonu it yàlla dina indaale ak yéesu ñépp ñi ko gëm te nelaw seen bopp ay musalkat di wax ak def lépp ngir nit ñi wóolu leen topp leen waaye mënuñu def li ñuy dige ana kan ci ñoom moo mësa dee te dekki seen ëllëg sax wóoru leen ndaxte amuñu dooley noot baakaar ak dee kàttanu dee moo sut seen bos ndax bu ñu deewee des na leen suul ñu des ci seeni bàmmeel ba keroog bésu àtte ba yeesu nag moom deena ni mbotem saraxu bésu teggi ba di paak gu aji sax ji ñu suul ko mu noot kàttanu dee dekki ca ñetteelu fan ba kenn mësula gis lu ni mel ci biir yonent yi sax mësu cee am ku dee ñu suul ko mu dekki waaye almasi bi yéesu moom daan na dee ak bàmmeel noot na bàkkaar ak seytaane ak barsaq kon na la wóor ne mooy musalkatu àddina moo tax kàddu yàlla ne mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce waaw yow miy déglu ndax gëmuloo yonente xam naa ne gëm nga yonente waaye du la jëriñ dara soo gëmul li ñu wax ci musalkat bi yeesu gëmal li yonente wax ci ki yàlla yónni lu ko moy sa ngëm day neen kàddug yàlla wax na ne soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko di nga mucc kon nag jërëjëf ci déglu bi ba beneen yoon su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li malaaka ya waxoon jigéen ña ne lu tax ngeen di seet kii dund ci biir néew yi nekkatu fi dekki na